J'ai gars Mister depuis Dakar Sénégal voilà gars t'es tey dama ñëw faire une vidéo si ma xarit Mamour Diallo affaire à Mangi Dakar quand ñu Mamour Diallo parce que sama xarit bon il y a deux jours essayé de contacter sama xarit Mamour Diallo mais jot Je ba legui xamuma ndax dafa changé euh, numéro téléphone am euh, wala numéro téléphone am doxatul ci WhatsApp mais en tout cas man numéro bi ma joxone ko euh, mais gisumako Mamour Diallo kuko xam xam ci vraiment man sama xarit la sax dama sama doom bu jabaram la ko Mais ak suis ak mom Binta Mamour la ko mais Mamour ñun ñoo classe et tout mais dama gis né sama frère bobu sama xarit bobu mi problème bu ndax émission Mamour Diallo dafa bëgg am Ousmane Sonko manam ne Mamour Diallo dafa waat j'aurai la peau de Ousmane Sonko Pape Alényan Niang wax ba wax ne affaire Adji Sarr bi légui ak affaire 94 milliards yi Mamoud Diallo ak euh, euh, gouvernement Macky Sall ni mu waxé Nous dañu dem ñu contacter ay avocat Toulouse la France vraiment euh, avocat yu mak ngir ñu jëm a nan Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko du bokk ci élection yi lool nak man bam ko déggé vraiment. daf maa jaaxle damaa jaaxle trop ndax man Mamour Diallo comme ni ko c'est mon ami c'est mon frère te ban vraiment yàgg naa ko woo di waxtaan ak moom jéem ko digal ci affaire Adji bi wax ko jox ko ci samay xalaat maa ngi Dakar su ma dinaa def lépp pour gis ko mais xëy na gis ko dina jafe mais man su ma ak moom dinaa ko xelal wax ko ne àdduna amul solo ndax jamono ji ñu ñun li ñu bëgg juboo am Sénégal li ñu bëgg mooy affaire Adji Sarr bi ñu jël ko ñu teg ko fële ñun li ñu bëgg mooy euh, euh, Ousmane sunkoo ñu bàyyi ko mu bokk ci élection yi nga xam ne Macky Sall moom normalement dañ ne warul bokk waaye bu dee Ousmane Sonko moom nee na na Macky Sall bokk te Macky Sall bu bokkee du am 25 pour cent du am 30 pour cent na Macky Sall bokk Ousmane Sonko gañe ko ñu bàyyi Sénégal nekk ci jàmm kenn du ñu wax ay affaire Adji Sarr kenn du wax waxu fayantu. kenn du wax waxu chasse aux sorcière ndax loolu baaxul man bu ma toogoon ak Mamour Diallo ci ci waxtaan yooyu laa koy laay wax ak moom mais duma ma toog ak moom mukk di ko wax bu dee li Pape Alé Niang da wax dëgg la ne Mamour Diallo moom ci boppam moom moo waat mu ne dina fexe ba am Ousmane Sonko je vais avoir sa peau ndax Ousmane Sonko moo ko yàqal ci affaire wu 94 milliards ba Macky Sall dàqu ko man sama xarit Mamour Diallo la laa ko doon wax dama ko doon wax Mamour Ousmane Sonko dàq la Ousmane Sonko dafa génn mu mu wax ne yaa jël 94 milliards te man yàgg naa génn di wax ne Mamour Diallo jëlul 94 milliards ndax ñaari milliards rek a jot a génn loolu def naa ah, Pape Alé ci boppam wax na ko Ousmane Sonko toog ak euh, émission def naa temps mu nekkee 2S la mu ne ko yow yaa ngi dañu jël 94 milliards ñaari milliards rek a jot a génn Ousmane Sonko ne ko même boo jëlee fukki dërëm sax fukki dërëm sax boo ko jëlee te moomoo ko. loolu baaxul waaw mais nag 94 milliards jotul génn ñaari milliards moo jotul génn xëy na nag ba coow li bëree ci la ñu arrêté génne xaalis di ko jox Tahirou Sarr loolu yàgg naa défendre Mamour Diallo patriote yu bëri sax di ma xas am nañ soo xam dañuy saaga man mi nga xam naa njaago Sonko nekk patriote bu ma waxee loo xam ne arrangé wu leen sax man tamit dañ may attaqué di ma saaga te c'est pas c'est pas sérieux c'est pas normal Mamour Diallo sama xarit la bu ma gisoon lu ma leer que ne moom dafa def lu bon man maa njëkk génn ma ma ma ne Mamour ma woo ko wax ak moom man jox jox naa ko sama xalaat ci affaire aji saar bi ma ne ko Mamour gab yi kan bi mu ciy dégg te ñu ne sa goro la mu ne recevoir na Adji Sarr euh, deux semaines avant problème yi ma ne ah Mamour baa di danga cee dugal sa loxo Mamour ba danga cee dugal sa loxo boo ci dugalee sa loxo def nga erreur man wax naa loolu Mamour Diallo après bàyyi naa ko benn audio ba ba ba affaire euh, euh, beneen audio MC Niass ak Mollah Morgun bi ba mu génnee. aji Adji Sarr enregistrement Mamour Diallo 18 minutes boobu man maay njaago Sonko aw ma lu may ragal génn naa ma def ci vidéo ma ne ah man ne baat bi ma dégg sama xarit Mamour Diallo la moo nekk ak Adji Sarr waaye vidéo boobu Mamour daf ci wax ne dafa am benn contrat def naa contrat moral sax la wax entre Adji Sarr mu koy wax ne moom dina ko jàppale bu ko mënee utal as passeport mu utal ko passeport après la procès loolu la Mamour Diallo wax mais loolu loolu pour man garaawul parce que Mamour Diallo ci logique am la nekk comme moom nee na day xeex Ousmane Sonko kon dina jéem a fexe bu fekkee Adji Sarr dafa ñëw ne am naa mëniwu Ousmane Sonko mu gëm ko loolu mooy problème même Ousmane Tounkara sax démb maa ngi koy dégg mu wax ko mu ne Adji Sarr leen nax parce que dafa leen fen mu ne leen am naa man mëniwu Sonko léegi ñoom ñu gëm ko waaye bañ demee ba ci giir Mamou Diallo ba mu demee ba ci biir gis ne Adji Sarr amul mëniwu moom amul vidéo amul euh, audio amul photo amul dara amul numéro téléphone amul dara. xëy na foofu la waroon bàyyi affaire bu mu sedd man loolu wax naa ko mais bu fekkee Pape Alé Niang li mu wax dëgg la que ne Mamour Diallo ba léegi bàyyiwul loxoom mi ngi jéem a euh, ah, ut ay avocat wala moom ñu Macky Sall ñu ngi jéem a ut avocat fële France ngir euh, ñu ñu ñu ñu daaneel Ousmane Sonko ba du bokk ci élection yi kon Mamour mi ngi gën a dugal euh, boppam te man sama xarit la vraiment bëgguma dara dal ko ndax événement yi bu mu amee ay nit song nañu këram këram dañ ko njëkk a taal. xam nga ñu toogaat presque une semaine bañ ko taalee maamam ba nga xam ne dund na 106 ans téeméer at ak juróom-benn euh, euh, ci la mujj gaañu ci semaine boobu ñu tegaat ci une semaine yaayu Mamour Diallo moom tamit gaañu kon mën nañu wax ne xëy na loolu moo ko jàpp bokk na ci li leen ci ci ci ci li gàttal seen fan. kon Mamour il a assez man yàgg naa wax loolu est-ce que yéen may dégg ndax deuxième fois bi ñëpp gis nañ ko euh, film yi ñu songu këram waa koñ bi génn. ne kenn du songu keur Mamour Diallo di sanante xeer nit yi nga xamne dañu ñëwoon pour a lak keur Mamour Diallo wala pour yakate ko après ñooñu dañoo muju delu ginaaw ndax wa koñ bi Mamour dafa ñag defal ay am juma fofu papam nek iliman juma ji am fo wañ bu mag bu ñëwee luga kenn du euh, euh, togg lolu yag na genn di défendre Mamour Diallo mais man yag na la wax ne Mamour Diallo du ma déglu du deglu sama conseil xëy lolu moy problème ma ngi ni nek Sénégal jëm na ko contacter. mënuma ko sax jot démb rek ba ma demee sama kër sama papa bi nga xam ne am na téeméeri at lan la ma njëkk a laaj ana Mamour Diallo est-ce que yaa ngi koy ma ne ko ah man de dégg moom ndax numéro bi ma jox ah dafa mel ne numéro boobu baaxatul est may dégg man daal su ma ko gisoon dinaa ne ko bu fekkee ne li Pape Alé Niang wax dëgg la na ci raxas ba mu set wécc gis nga affaire Adji Sarr bi ak Macky Sall ci boppam man yemuma sax ci euh, Mamour Diallo rek mais Macky Sall ñu mu leen di digal mooy dëkk bi jàmm la ñu wax ne moom la ñu bëgg kon nañu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk affaire Adji Sarr nañ ko jël ñu teg ko fële ñu teg ko fële ñu jël euh, euh, euh, Ousmane Sonko bu bëggee bokk nañ ko bàyyi mu bokk Macky Sall moom defe ne du def troisième mandat kon yëf yi warul warul warul egg foofu waaye bu demee ba ci biir moom mu ne day def troisième mandat mais Ousmane Sonko amul problème Macky Sall bokk parce que Ousmane Sonko ñaari yoon a ngi nii muy wax ne Macky bu bokkee du am vingt cinq pour cent du am 30 waxon na fi aussi Macky bu forcé ba troisième mandat du gouverner dans sa tête Ousmane Sonko def na Macky dafa bok Guy Sagnan mu wax lolu mu ne Macky la bëgg dafa bëgg Ousmane Sonko na bok mom mu El Malik dégg na muy wax tay mu ne Ousmane Sonko bu te Yalla yéex dina bok amul dara lu ko a bok. Il ndax mom jaral na ne kon wax Macky Sall bokk Karim Wade bokk Khalifa Sall bokk yéen ñëpp ngeen bokk ku gagné ñu xam ne yaa gagné mu mu mu leer man position boobu laa am waaye nekkatuñu ci logique gu naan dañuy jéem a taal Sénégal dañuy jéem a xooxatal nit dañuy jéem a def lii nañu jéem a fexe ñu sauver sa réew mi même Macky Sall bu fi jógee na fi jógee ci jàmm ak salaam ñu fi nekk di fayantoog ay Farba Ngom ñu fi nekk eh, di fayantoog ak waa APR ndax réconciliation nationale moo gën lépp. comprendre nga nit ki nag du nekk du yore nguur yore lépp nga koy menacer di ko wax bu ma la jàpp boo bàyyi nguur gi dama lay tëj euh, dinaa nangu seen xaalis dinañ leen def lii dinañ def laa loolu day tax ñoom tamit bu ñu waroon bàyyi sax du ñu bàyyi. est-ce que may dégg fokk ci nguur yombul waa patriote yi tamit il faut que ngeen ngeen ngeen ñu gën ñu gën a intelligent tuuti nous sommes intelligent mais nous sommes intelligents. intelligent la fin justifie les moyens ñun nguur gi nous lu ñu ko mënee jot ci jàmm nañ ko jot waaye jotagoo nguur nga commencé di menacer Mamour Diallo di menacer Farba Ngom di menacer Macky menacer Sall menacer nous <laughs> le 29 juin police bi le 17 gis nga ba nu mu euh, Ousmane Sonko. waxuma ne makki moo ñu ëpp doole moo ñu mën de waaye lan moo fi jar di rey ay ay ay bakken di rot Idrissa Goudiaby lan moo fi euh, euh, euh, jot Abdoulaye Diatta ñun foofu la ñu waxee léegi nag Macky Sall tamit ñun ni ñu koy wax rek mooy bul yaakaar ne yaa am doole yaa am doole ba yaakaar ne ah mën nga rey junni nit Sénégal te dara du la ci fekk ndax sénégalais yi fu mu nekk am na ci ñoo xam ne dañ ne troisième mandat moom bu ko Macky waxee jaral na leen seen bakken loolu yëpp ñu ngi koy wax kon ñaari côté ñoo war toog ñu xam ne Sénégal waruñu ko yàq waruñu ko taal te xam naa ne Serigne Mountakha ak ñeneen Serigne ñi duñ ko seetaan Macky Sall Macky Sall fi mu nekk Sonko waxatul dara ci xeex am na ay député am 2024 ak fi jot kon song buy am Macky Sall mooy song ñun foofu la ñuy waxee voilà gars yi lii benn vidéo bu gàtt la bu mu leen defal ci sama xarit Mamour Diallo bu fekkee ne jot na numéro vidéo bi wala keneen ku am numéro vidéo bi na ko wax leen ko ne Mister Shake mi ngi Sénégal té vraiment dañu wara a wa man nak amna yenen moyen sax pour pour jot ko mais duma ci waruma jaar fofu waruma jaar ci yenen nit pour jot sama xarit Mamour Diallo mais bu fekkee ne moom bëggul wax ak mom peut-être amna ay raison man duma duma forcer dara wa mais en tout cas mom amna sama contact euh bayil nako message ci numéro bi ma jox euh bu fekkene nak buguma bëgguma gis y pas de problème man nak dama ne man maay njaagu Sonko waaye Sonko sax duma ko setti man tamit waaw parce que man duma opportuniste seetuwuma Sonko Sonko man man ah, eh, eh, jéemuma xeex pour am poste man soxla mu poste maa ngi ak sama liggéey Amérique maa ngi sant yàlla dama ñëw vacances dama ñëw noppaliku activiste laa damay continuer di def samay sama liggéey pour Sénégal jëm kanam ñun loolu ñu intéressé mais taal réew mi wala di di di tëj ay nit loolu intéressé wuñu fayantu intéressé ñu li am Rwanda moo gën a garaaw huit cent mille personnes rey nañ ne fa ñett juróom-ñetti téeméeri jun euh, euh, junni nit ray nañ leen fa mais Paul Kagame ba mu ñëwee dafa baal ñëpp ñi ray ay ay ay ay euh, téeméeri nit sax dañ leen a baal ngir dëkk bi nekk ci jàmm like leen partagé leen abonné leen monsieur Cheikh ba beneen ñu defal leen vidéo merci vive le président Sonko vive askan bi vive le Sénégal merci